ma TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima xibaar yu wér ma sama baay yi santal ma sama mag yi santal ma sama ne euh, yaay lam sal baax na kon wax la am baax lool am valeur lool gora lool li ma ko gën a neexee. ah wax dëgg yàlla di am di wax si yow yëpp. fa mu mësu faa bouge. amaana liñ ci ta ëpp kër bari na lool ndax ñu fekkee ni ko denn doyal. te wax na ko duñ ko répété waat. day yaay lam sal zéro la. xar ci la am ngoro yi yaay mën di jàmm. ñu bëgg ma la jox ma cër yi ma ko tax ñu dugg jikkoo yi ne dara umpantewul ci moom di ko jëkkëram yiw na gore na may na ko jàmm bàyyi na ko ci ay xaritam bàyyi na ko ñu dem ci ay mbokkam te géwél boo téye tànkam rek rey nga sant yàlla rek julli ci bi sant sunu ñaari waajur sant sëñ Fall. ak wet la moom sama xarit la. ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sunu ñaari waajur sant sëñ Fall sama sëriñ Ndeye Ndiaye nag moom ku nekk xam ne sama diggante moom sama sër la daf ma bëgg. ñoo bokk aar bi waaye daf ma def ko comme boppam su ma wootee guddi nekk ci guddi moo ci gën bu ma amee naqar bu ma geestoo gis ko. te ki nga xam ne boo amee bànneex boo gestoo gis ko war nga boo amee naqar boo gestoo gis ko loolu mooy ànd ndax ànd du bànneex rek dañu am bànneex di am naqar ki nga xam ne nag boo amee bànneex gis la war na bu amee naqar barki démb la sama borom kër gaañu amagul un an Louga laa ko doon dëjee ba Louga la ma fekk te looloo gën a tuuti ci lim seq ak man bu ma doon jooyloo du jooy mukk ndax nit ku baax la nit ku dëggu nit ku am valeur nit ku baax dañuy ñaanal yàlla borom këram bi ko dëddu yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla xare ko àjjana loolu daal moo ñu indi ci dëj bi ñu toog koog moom ba mu gaañoo ba tey di ñaan yàlla toog koog moom ba mu sedd te ñaan yàlla li mu dugg yàlla na ci génn ak jàmm mu reeg jàmm ci barke Sëñ Fall. waa nit yaay lam sa sama xaritu raq bii la Kumba Merveille la moo tax ma xam ko ma xam ko na nit ku baax am diine waaw nit ku mën a sonn ci nit moom nag dañ koy ñaanal rek këram gi yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yonent bi ko ñaanal sarax bi yàgg si loxoom loolu mu yàgg ko saraxam mais yaay nag moom day xaw a jafe fu ñu nekk di bëcc ndax moom baaxaayam foo ko natt foofu bu mën a sonn ci nit sonn ci njabootam ci ay xaritam ñun ñi di ay xaritam aussi a sonn suñu programme sonn suñu koo fay daal ñu li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla may sallallahu salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ah li mën a wax ci borom këru Ndeye Ndiaye borom këru Ndeye man sama papa man sama papa la sama papa magam mu wëlbatiku féetale ma Ndeye Ndiaye te Ndeye Ndiaye yàqu ci dara. Ndeye Ndiaye sama yaay la sama jabar la kon nag Ndeye Ndiaye dañ koy ñaanal yàlla fépp fu ko sama papa féete nag yàlla na ko yàlla féete dundu ma jabootam ji aw ko ca kaw a kaw barke borom dañ koy ñaanal fan bu dëgg yàlla macha allah. day nit koo xam ne. dafa am ñaanu ndeyam tubaarkàlla kaar macha allah di xale bu baax ma bokk ak moom benn ndey mu bëgg yaayam fonk ndeyam man mii di taawu ndeyam daf ma fonk daf ma bëgg daf ma jëmmal daf ma màggal ndey njaay nag dafa bu baax nàmp jom yóbbu na yaayam màkka yóbbu na nijaay màkka yóbbu na taawu ndeyam ji màkka di Ablaay Njaay tubaarkàlla kaar macha allah ndax nit am na ko te def kon Ndeye Ndiaye li ma ciy wax rek ndax kenn mënta wax ci moom lépp ba mu jeex ndax dañoo nekk ci bésu naqar kon di ko ñaanal yàlla rek lii mu liggéey daal nekk ci liggéey bi yàlla na ci dugg ci bisimilah xam ne génn ci alhamdulilahi rabbil alamin kum rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi nuyu bokki Sénégal yëpp ci li nga xam na tey mooy télé yëpp fa dajaloo Touba Sen di jàmbaar pàkk tëdd ci biir réew mi waaye xale yi bañ ñëwee léegi ñi ngeen yebal maa ngi wax ci turu directeur bi xale yi ngeen yebal ñu ñëw jël si liggéey bi yaru nañu am nañu teggin ñu ngi laaj na ci laaj bu yar ak yar woyaanuñu ñaanuñu wan ñu kenn xaalis la ñuy tax a jóg ñu ngi toppatoo seen liggéey te loolu yëpp day am waaye loolu mooy dëgg ndax rajo du fo télévision du fo boo jëlee say employé dem ngeen liggéey dañoo war a def seen liggéey. bon maa ngi leen di gërëm di leen sant tur bi Ibrahima ak équipe bi mu àndal. yan kàddu seede nga mën a indi ci ki nga xamante ne. waaw loolu ma ciy sawar Ndeye Ndiaye mii jëkkëram gaañu di Abdoulaye Diagne Ndeye Ndiaye Jibi Ndiaye moo ko jur Mbaye Mbuub moo ko jur di yaayam njukki la ñu dëkk ay kajool kajool piir lañu ay jëwel piir lañu ñuy ay nit ñu bokk ci réew mi. yóbbu na yaayam Makka yóbbu na ay càmmiñam yóbbu na ay nijaayam dëkk bii mu dëkk di xaar yàlla teral na leen jàppale na leen kenn ku ci nekk boo amee loo xam ne yaa ngi koy def bu leen jaay mu ngi ci biir suñu kanam la juddoo suñu kanam la yaroo baayam nag mus naa wax sama kanam Ndeye Ndiaye man gàmmukat laa maag Ibou Sakho ñooy ba Makka may gàmmo ba Sénégal mu neexoon baat lool di taalibe Cheikh Mahamad Tidianiya waaye bu la jàppale waa kër Cheikh Mahamadou Bamba nga defe ne fa la ne la doon waaye tant bi ku ñëw xam ne lu waaye di leble nay lu baax Ablaye Ndiaye mooy magam di taxaw ak rakkam xaar yàlla gépp damu juddoo ñëw nañu baara xuma mi délégué de quartier xaar yàlla doo di borom këru maam Fatou Mbakke bu Cheikh Mahamad Fadal Mbakke ñoom ñëpp ñu ngi tànt bi ak xaaral la trois dëkk bi nag yàgg na ma nekk seen porte parole di wax ci seen tur waaye di ma lay xamal ne ku baax dem na ku yiw dem na ku bari kersa dem na muy Ablaye Diagne borom këram ak a yiw ak a nekk taaliba Serigne Touba ak a bëgg lu baax di wax mukk waxam yëpp moo jëkkoy sëñ Cheikh Mbacke la yor lamb joxe rek la xam ba ni mu dee yàlla na ko yàlla suturaal dee ngeen jëf. ñu ngi la koy delloo. waaw ñu ngi sant yàlla baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu suñu polit ak suñu yaakaar Cheikh Xadim di ñaan kii nga xamante ni moo fi bàyyi ko muy sëñ Ablaay yàlla na yàlla def dee di noflaayam yàlla na dajeeg sëñ Tuubaa mën ko yóbbu waaye yàlla dogal na xamuñu ko woon ci jëmm waaye soxnaam si di soxna Ndey Njaay Lamsal moom la ñu xam muy sunu jigéen di sunu wëlëre di sunu mbokkum taalibe tamit ñu bokk daayira boo xamante ni daayira bi daayira bëgg Seex Mamadu Fadal la tudd te kenn ku ne xam na ne soxna Ndey Njaay taalibe seex la waaye dafa bëgg sëñ Fallu ba daayira boobu mu ñëw bokk ci looloo moo waral bi borom këram bi wàccee liggéey ñu ñëw ngir jaale si ko jàngal ko xasaay di am tamit ci gi fi daje ak ñaan tamit seen.